ñu bàyyi seen ñeme yàlla gi mhm. ak seen tappale gi ñu nekkee ay mhm. àndandoo Bachir fu mu lan moo leen war àndandoo Bassirou Diomaye Faye lan moo leen war mhm. xam nga ni ci kaso bi nan la def am parrainage nan la def am parrainage xale yi ko parrainé waaw ni ko xale yi parrainé nañ ko campagne leen noonu rek génn bi arrangé wu ko génn bi danger la ci moom dafa ëmb nag lu bari nag dafa ëmb lu bari lu ñuy wax ci caméra xam nga booy ñëw émission say mbokk dañ lay yab dañ lay yab ma ni ku yab séet mais man damay romb rek am na yoo xam ne dama la koy wax ci suuf soo waxee sa akulaay taala am na yoo xam ne mun naa ko wax ni nit ñi dégg ko mais lu ci ëpp loo xam dafa xóot du ma ko wax du ma ko fésal ci kenn mais su amee dinaa ne Vito waxoon naa Vito lii mooy comme waaye génn basi est-ce que bakkanam xaj na ci Vito hmm. Vito bàyyi ma waaw loolu laa la laaj dañu ah, bàyyi ma ah, mais parce que da nga Euh, Vito laajaat ma leneen ñu bàyyi question boobu. Hmm. waaw man maa la ko ñaan laajaat ma leneen ñu bàyyi question boobu affaire la. Ah, lu tax may wax waxi bakkan sa sa sa sa yaram. mel ni lu daw bakkan dafa foor bakkan dafa foor te te Bachir doom la. Hmm. ay mbokkam dañ ko soxla. Hmm. te xale la ndaw la te ñu ngi si yoon. te ñu ngi si yoon daal. waaw nañu bàyyi doomu jàmbur bi. ba yàlla def li gën. waaw te yàlla li mu maye bu ko nanguwulee. yuuxutali du fu ko foogee hmm. mais diggante Ousmane Sonko ak kaso fu toll nii parce que Ousmane tamit mu ngi bëgg yàgg ci biir kaso bi waaw xam nga xam nga Ousmane dañu ne vidéo mi kaso la ko tourné waaw am na ñu wax loolu <laughs> am na ñu ne Ousmane vidéo mi biir kaso la ko tourné ah, ah, effectivement kaso la ko ah Sonko du dañ ko barricadé woon te dañu barricadé woon këram. 55 jours 55 jours yooyu ci la liggéey li muy liggéey ci biir këram ci la liggéey li muy liggéey ci biir këram. Mm-hmm. vidéo yi ci biir këram la ko tourné. Mm-hmm. kooku kaso la ci biir këram la. dëgg la ndax yow nit ki soo ko tëjee. Mm-hmm. demul dikkul. doxul demul fenn. muy bind. wala muy teg ay vidéo am di enregistré. di denc. kooku kay ci kasolo ko tourné parce que biir këram la ko tourné. gis nga yàlla bu rëddee. nga effacé mu rëddaan nga effacé yow lay rëdd effacé yow lay effacé rëdd soog a rëdd waaw mhm. nañu bàyyi doomu jàmbur ji di ko mhm. tuumaal naan ba pare di leen sonal ne biir prison la ko tourné tourné wu ko biir prison nañu bàyyi jàmbur mhm. bañ ko tëjee ci biir këram nag tourné ay vidéo nga am na ci plein droit ndax demul dikkul ku demul dikkul nag loo sa xel may loolu ngay def lu ko xelam may loolu la def tekk waaw mais li ko xelam may ni muus la wala lan la exactement waa xam nga xam nga doomu aadama. dafa am lu suñu borom di mooñ ci yow. Mhm. ku ne dafa am lu suñu borom mooñ ci yow lii lu suñu borom mooñ ci moom la lii mbirum suñu borom la suñu borom mooñ ci moom la te dafa am lu suñu borom def ci moom. Mhm. mooy saa su ne ma lay wax problème am naan la nii nii la mel nii la mel nga am tax nga naan du nit. Mhm. effectivement am na lu nekk si moom am na lu ko suñu borom may. am na baati mu nekk baati. taxi borom taxi man bi ima wax jooju maa koy doog a dégg sama nopp mu nekk wax ju ju yéeme mu ne ma soxna si ma ne ko naa mu ne ma est-ce que xam nga Ousmane Sonko mus na toog impôt domaine ndogu jot mu ne du ci ndogu mu génn dem jël téeméeram dugg si bitig jënd lu mu ndogoo. Mm-hmm. est-ce xam nga lu tax mu def loolu. Mm-hmm. dafa am lu tax mu def loolu mbir la. parce que histoire boobu man man ni nettali nañ ma ko. waaw ñu ne Ousmane dafa dem fenn di def audit di contrôler. waaw ba muy contrôler. waaw jamono yi. weeru koor la woon. waaw mais bi ñu contrôlé ba ndogu jot. waaw ki ñu doon contrôlé defaral leen ay ndog yooyu noonu. waaw moom mu wàcc ci suuf. dem jënd ndogu jënd ndogu jënd tàndarma ak yooyu. man maa ngi doog wax jooju maa a dégg tey. Mhm. est-ce yow yow tey man mii de tey ku ma joxoon ca ndogu ba daay ndogu ba fii de daay sama parce que moom comme nee na moom wóorul ndax waa ji lim leen di jox waa te comme bu dañ nekk di ko contrôler moom dafa doon daw ku ko corrompre rek yooyu noonu waaw léegi nag parce que xam nga corruption dafa nit mu na la jox ndogu nga lekk ci sa xol féex rek. nga ne kon kii nañ ko defal comme defal nañu teraanga ji. bàyyi ñu kii waaw jeex na. Hmm. moo tax ma ne la dafa am lu suñu borom dëxañ ci moom li suñu borom dëxañ ci moom na nañu bàyyi li suñu borom dëxañ ci Ousmane. Hmm. Hmm. mais génnam moom. génnam moom mënu ma cee wax dara mënu ma ci sori mënu ma cee wax dara waaye bu yàlla la mu la mu mayee bu ko nanguwalee dina génn. dana génn ci kàttanu yàlla te buy génn ci yeneen loxo lay jaar génn. waaw Vito. yeneen loxo mooy. waaw dina génn rek. Mhm. waaw dina génn li may wax yaa ma ko gën a xam. Mhm. dina génn dina génn. Mhm. waaw dina génn ci kàttanu yàlla. dina génn dina jaar ci ay loxo ba génn ci kàttanu yàlla. kon dina fekk élection yi jàll ba. ah xay xaw ma ma dina fekk élection yi jàll wala du jàll waan daal dina génn ci kàttanu yàlla. vous êtes sur 313 digital euh, ñu waxtaanee waat euh, leneen mooy li nga xamante ne waa opposition bi ñu ngi koy waajal mais laata opposition bi. parce que opposition mooy ay euh, waaw sax maa ngi bëgg bëgg jaawale sax. mais balaa ñuy wax ci opposition bi carrément. dañuy wax ci candidats yi nga xam ne dañ leen recalé. ñi nga xamante demoon nañ dugal seen parrainage ñu génne tey rek maa ngi déglu Abdou Bara Mbacké Dolly defe naa. Cheikh Abdou baara mu ne bu ñu bokk ci élection yi. élection du am ñoom ñi nga xamante ne dañ leen recalé ba limaale ci Karim Wade. est-ce que loolu seen taxawaay la wala ñoom dañoo waroon wax ne comme ñee jàll nañ rek te ñun peut-être ci opposition lañ nañ campagne yi ñëpp. Vito lan laa émission bi passé mhm. lan laa la waxoon dama la ko wax ci kaw wax la ko ci suuf. am na lu ñuy waajal. waaw mhm. li ñuy waajal mooy lii gis nga ñoom dañoo ngarale seen tànk dañoo ngarale dañoo jël tànk bi sànni fii jël tànk bee sànni fële. Mhm. mais gis nga li ñuy ngarale lépp seen kaw lay këppwaat. Hmm. waaw li ñuy ngarale nii ñoom ñépp seen kaw lay delluwaat li ma la wax rek kenn amu ci xolu dem fekk ji jomaay ku ci ne dangaa rëy rëyu fekk ji jomaay. gis nga sooy def calcul politique. Mhm. toujours da ngay surux. Mhm. gis nga booy calculer toujours yaa ngi ci biir kàmb gi te moom dafa wax wax ju ndax su demee ba ne ku ku booteelul Karim wala xaw ma ku lanul Karim kii nga sëñ Touba am na lu wax daal. xaw ma nu mu ko mhm. waxee ensemble. nga sëñ à part la Karim Wade à part la. gis nga wax du da bokk ci kër kilifa diini rek. lu la neex wax. wax da koy wodd wax da koy rafetal wax da koy wormaal. parce soo waxee loo rek yaa ngi jël. politique di ko booleek waa kër sëñ Touba. Mhm. dëgg la papay Karim dafa jëpp dafa mhm. foofu la bokk. Mhm. mais su fekkee moom foofu la bokk tax na nga wax wax ju rëy jii mi ngi wax wax joo xam ne xamul sax danger bi li ci nekk ci biir. wax ju rëy la wax nag wax ju rëy la wax te ñoom ñoom ñëpp kenn xamul lu ñu doon nag. wax naa la ko fii nee naa la opposition bi ñu ngi togg loo xam ni baaxul ci Sonko. toog su continuer baaxul ci Sonko. naka la ñuy nekkee ci opposition di togg lu baaxul ci Sonko. waaw man kay woon ñi ne ci pouvoir bi ñooy togg lu baaxul ci Sonko. waaw léegi ana ana bëgguloo nit ki ana bëgguloo ko mu falu ana bëggoo nit ki ana bëggoo mu falu mooy li ma la xoon keroog nee naa la Sonko dafa set ba ku tilim doo ko bëgg. Mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk pour bëgg leneen muy dox ñuy toog muy dox di lekk muy dox kenn du ci bëgg Sonko. Mhm. kenn du ci bëgg Sonko. su ñu bëggoon Sonko bu leen tàllalee loxo ñoom ñëpp dinañ ko fekk si. Mhm. ñoom ñëpp kii que ce soit ko fekk si. Mhm. kenn warul xaal. Mhm. ñu lay jël si. kenn warul xaar ñu lay tàllal loxo. yéen nee na Macky ngeen di xeex. du dañu ni moom ngeen di xeex. kon kay yéen kii xeexal Macky Sall ko ngeen war a dem jàppale n'est-ce pas. dëgg la ah mais su fekkee yéen da ngeen naan élection du fi am. kon yéen kenn xamul fi ngeen taxaw. mooy li ma la wax gis nga li ñuy togg nii togg nañ ko ba pare ñu ngi ci yoon bi. presque pare na. te yéen a ngi gis commencé gis te di ngeen gën a gis. waaw nañu bàyyi élection yi am Karim mënuñu créer élection. Mhm. Karim ñaata at la génn fii Sénégal. waaw Karim Wade bëgg naa ñu dugg ci mbiram. parce que Karim Wade moom nee na bu bokk ci élection yi kaw dina am. waaw moom naka la mën a nekkee fële di kawu senegal mm. naka la mën a nekkee dëkk bi mu nekk bëgg a def kaawu Sénégal. Hmm. xaa day fekk mu neex moom moom tamit est-ce que tooñuñu ko buñ ko tooñee tamit am na droit def li muy def. waaw bu fekkee dañ ko tooñ lu nekk si yoon day jaar ci yoon mais moom mu nekk foofu toog ne candidat la gisuñu candidat bu ñëw gisuñu candidat bu campagne mu toog ba léegi naan su eh, eh, su ma bokkul élection du am kooku day wax lu ko neex élection moom bu amee di ngeen gis lu ngeen ta gis bu amulee nag moom xaw ma ci mbir mi dara. Hmm. waaw bu amee bu amee ah. <laughs> mais Karim Wade lan moo waroon a doon moom taxawaayam ndax ci lii la nekk wala yow. Karim Wade ci boppam taxawaayam. moo mbiru Karim sax lan nga ci gis yow. man mbirum Karim gisuma ci lenn gisuma ci dem gisuma ci dikk mbirum Karim bukk yi sàngoo deru bëy opposition. Mhm. bukk yi sàngoo deru bëy ñoo fi nekk toujours dama koy wax dama koy repetewaat waat bukk yi sàngoo deru bëy lañu. Mhm. te gis nga li ñuy def nii après day retourner seen kaw. Ah maa la wax lii. Mhm. bu élection amul li ñuy li ñuy nas ni yépp après seen kaw day retourné waat sëñ Habib si da daan wax sooy gasal sa sa noon pax bu pax mi xóot bu mu xóot ñoom looloo leen nar a dal ñoom ñëpp bëgguñu mm-hmm. Sonko du mm-hmm. kenn ku ci bëgg Sonko nag ñi ñuy tàllal loxo keneen keneen keneen keneen kenn bugg ci Sonko. Mhm. bu fekkee yéen Macky Sall ngeen di xeex dëggantaan moom ngeen di xeex. Mhm. dem leen ànd ak kii xeex ak Macky Sall. Mhm. mais yéen tey ne élection du fi am ndax lan dañ leen recalé moo tax ngeen ne élection fi am ngeen teg ko fan. ñu teg ko fan dem leen jàppale ñi nga xam ne bàyyi nañ ngeen ñu jàll. wala am déet. waaw dëgg la ngeen di jàppale ñi nga xam ne bàyyi nañ leen ñu jàll bu fekkee yéen li ngeen wax dëgg la. dëgg la si yéen dëgg defu leen tàllal fi tànk tàllal fee tànk. dëgg la si yéen Macky Sall ngeen fi bëgg a jëlee dem leen jàppale kii xeex Macky Sall. Mhm. dem leen dooleel ko lan moo tax ñu dooleel ko. jar na laaj loolu mooy ñuul ci soow mi nag. Mhm. waaw li tax dem demuñu dooleel ki nga xam ne dafa ne Macky Sall na fi jóge moo xam opposition bu mu mën a doon. Mhm. Aly Ngouille njaay keneen ak keneen. demu leen jàppale ko ngeen moom élection dañ koy pousse lan moo tax ngeen di pousse élection lan moo tax ñeen di pousse élection. laaj naa la ko Vito lan moo tax ñuy pousse élection. moo ma jaaxal ah jar na jar na jar na jar na vraiment def taxaw seetlu te loolu sax moo indi euh, xeex wu rëy wi ñu gisoon fële assemblée nationale du ma ko tuddee sax xeex waaye Mame Diarra Fam bëgg vraiment attaque cerno alsaan sàll muy taas ndax Thierno Alassane moo dugal recours boobu nga xamante ne moo tax ñu invalider candidature Karim Wade. yëpp benn say bi la yëpp benn sayu bale bi la yëpp benn bale bu ñu takk la. yeew ko ba mu dëgër gis nga Sonko ba mu commencé ñoom ñu bëgg député mm-hmm. ba ñu bëggee député Sonko bari woon na ay yaay mm-hmm. bari woon na yaay bari woon na papa mm-hmm. bari na nijaay ba làmp yëpp mu lëndam lool kenn xamul fooy jaar Sonko bari woon na yaay bari woon na papa bari woon na nijaay mais bi làmp yi tàkkee dañoo jalax ne Sonko di def seen jouer bukki yooyu nañu bàyyi li ñuy def sénégalais yi sénégalais yi kenn dafatul mhm. ñi doon nelaw ñi doon ñu yeewu ñoo yee ñi doon nelaw mhm. léegi koo yaakaar ne mën nga koo nax dox ci xelam yaa ngi nax sa bopp ñoom ñëpp benn say bi la xeex boobu ngay gis yëpp xeex comédien la ah naa la wax lii xeex boobu nga gis noonu yëpp mhm. su ma doon ña fa nekk sax ñi nga xam ne moom bokkuñoo ñoom dara kenn waru ci woon àtte da ngeen war a toog bàyyi la ñu tojante seen bopp ndax yow su fekkee da nga nekk kilifa bàyyi sa njaboot sa kër bàyyi say doom bàyyi say goro nga nekk ci ensemble ba di xeex fu ñu tool dégg sa làmmiñ lan moo tax ngay xeex. Mhm. lan moo tax ngay kan moo tax ngeen nekk ngeen am yenn somu député yi. Mhm. kan moo tax ngeen ngeen tax ngeen dégg wiiw. Mhm. kan moo tax ngeen mën a jàppale ñeneen kan moo tax kan kan moo tax. waan nag li ma la waxoon rek ko yàllaa koy gunge. mais du doomu aadama bu mu yaakaar. waaw yàlla moo koy gunge ba fu mu yegg rek mu nekk fa cëpp teg. waaw mbirum yaayu Sonko yi parce que Mame Diarra déggoon nañ ko jamono mu ne moom yaayu Sonko la ak yooyu bu ñuy kii Sonko <laughs> mu dem kër Sonko yooyu te moom mooy xeex pour Karim Wade est-ce du moom tamit dafa doomoo Karim Wade rek. Vito. Mhm. mooy li ma la wax rek. Vito benn sayu bale la bu takkee ñoom ñëpp ñu ci biir sayu bale bi duma ma sori nag ci wax ji ndax bëgguma tooñ. Mhm. mais daal li ma la wax ñi ñiy dégg xam nañ li ma bëgg a wax lan la. Mhm. ñoom ñëpp benn bale bi moo leen benn takku bale la ñoom ñëpp ñu ci biir sayu bale bi. Coura mhm. Macky. kooku moom du wax si moom vraiment kooku du ma wax si moom. ndax lu tax dara du wax si moom. moom taxaw na ci kanamu assemblée ŋàññi Ousmane Sonko wax vraiment Ousmane Sonko luy tàkk te du fay. waaw xam nga xam nga su fekkee da wax nit ki dara te dara la ci fekk lu la neex mun nga ko wax waaw boo bokkee fenn bu la leneen boo doon taal daay bi kenn du ŋaañ. Mhm. bu la neexee dangay ngay taal daay bi daay bi tàkk sa yoon nekku ci. kooku moom du ma wax ay waxam billaay wallaay taalaay du ma wax ay waxam. Mhm. waaw du ma sax tudd turam. Mhm. ayca vous êtes sur 313 euh, digital. Euh, mën nañu vraiment bu ngeen bëggee jot yaay Adama Sakho numéro bi yaa ngi noonu affiché